nee na daal fii tey dañuy buggoon waxtaan ak yow loo xamee ni daal eh, ñun dañuy jóge capitale Guinée Bissau bi ñuy commencé jógee foofu balaa ñuy dëkk fii daal maanaam li ñu ñuy arrêté ci mana poste yi walla ci tali yi ñi ñuy fekke foofu daal gendarmerie douanier yi police jàpp ñu jàpp ñu jàpp ñu ba sunu alal yi jeexe tàkk maanaam ñu wax leen léegi daal li ñuy wax daal mooy li ñun ay taalibe Serigne Touba ñun ay murit lañu bu ñuy ñëwee daal ku ñu ñuy jàpp daal dañuy ne jëmm Serigne Touba daal baal ñu daal amuñu dërëm. bu màggal dikkee rek du ñu mën a nekkee di dara daal maanaam xanaa ñu ñëw Touba fi ilaa Touba ilaa Touba. lii ngeen wax nag. kuma kii ginoo fala sing dégg nañ ko bu baax a baax. kuma ewoo biil daana ko jot ak kilifa yi ko war a yëg yëpp eh, kuma sous région eh, kuma ko no ɓin nane sous région kino seeɗu Guinée Bissau ko Sénégal ndax du tey ngeen ko njëkk a wax kuma e ka osikino kum sana falal at bu jot problème bi dana dikk dikkaat kuma kada anu no ta vividi es no ta ma no kata mayna no kadin kon nag noonu sañ nañoo ñaan kuma NC ena gardesi autorité yi nga xam ne ngi ci kaw yoon wi kuma kimis kisana kamiñu nañu yolomal yoon yi e pay pudi larga kamiñu dimbali pèlerin yi ñëw ci màggal ki pay edi sa ñindis kina bi màggal pay pudi cigandi diretu ndax jógee sa dëkk pano seen no teera jëm si ci Serigne Touba fa sanoto masrin tuba ñu teg la coono yoo xam ne daanaka da nga dem ba yoon wi dootu bëgg dara fa elise kana obidi kinomidi serin tuba kinono falel sikuma anosi noona bay illa tuba serin tuba so kinom misti serin tuba lim ji waa réew mi kuma serin tuba ke gi fasilli jombaate naag loolu kuma loolu kila lapandingin ka pour pensal kon ñi nga xam ne ñoo yore yoon wi kuma ñin kiliski sana kamiñu nañu delloo njukkal Serigne Touba elise dibiri dibiri kanta Serigne Touba fay dibiri gar si Serigne Touba damay jaay ma ganam yi ba ñu agsi ci jàmm fa ospris kii na biim pay pour ci gadritu moo xam eaux et forêts la kuma kiliski sala noo si moo xam douane la guardia nationale noo si guardia nationale o eh, eh, guardia police judiciaire wala gendarmerie o douanis diwtiir yi ñu yor kuma anosi siti bur meju noo ten ak euh, lem gi ñu yor kuma meel kino ta tiisi kenn ku nekk fa nga bàyyi ko la fa am doon nga mën a joxe sëriñ kuma anosi no dafa la kuma subu waje esi katen la noon leba muur yel talvez sine misti esi te loolu ñuy indi kuma kiki noon na tiisi ci bari bisab sëriñ bi lañ koy dugal kuma sëriñ Tuubaa si biya keta en drandaal li kon nag bu soobee yàlla kuma si deus kiseer danan ko danan ci fu ñu ko war daan ko fa yëgle eh, tuudu kaw ke e fuɗi ɓoota ɓaanu ena ɓoota ɓaanu la mbiyam soomna yaal dana dakk kuma sidewski sere ena toma paaka sidewski sere ena kortala kila